di am kontante ak mbégte ci ànd gi ngeen ànd ak seen euh, télévision Rafah TV ñu leen di nuyu bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na yàlla dafa leen jàmm ku gis suñu taxawaay bii ñu taxaw ci pàkk bu sell bii nga xamante ne ñu ngi koy wooyee no Arifin nekk fii ci yoon daaru dañ fi ñëw tey seet si jëmm joo xamante ne jàpp nañ ne dootuñu ko présenté ci àdduna ndax jëmm la joo xamante ne turam àgg na foo xamante ne sax jëmmam àggu fa ndax identification moo am solo ci àdduna foo ci ne kennal Serigne Touba xel yi dem ci jëmmam ju sell ji le mu nekk jëmm joo xamante ne kuy faj eh, aajo la ci saayir ak baatin yàlla dogal tey ñëw ngir fas yéene waxtaan ak moom waaye ñu jéem a xamlante ak moom waaye jéem a xamal askan wi kan mooy jëmm ju sell ji nga xamante ne moom lañ fas yéene seet si tey. fii ngeen di jàkkaar moom mooy buntu këram fii ci bustaanu arifin ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax jëmm joo xamante ne jot na àdduna xam ko muy wuyee ci woon tur eh, Serigne Djily Niang kenn eh, kennal Serigne Touba. incha allah rabbi ci kanam tuuti dinañ dugg ci biir waxtaan ak moom feccanteeg moom ay xalaat jëlee ci moom njëriñ yoo xamante ne incha allah rabbi buñ ko ah jàllalee ci àdduna dana nekk njëriñ loo xamante ne fu ab taalibe mën a nekk incha allah rabbi da nga ci am njëriñ loo xamante ne lu kawee sa njort lay doon kon mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje eh, ci kanam tuuti ñu dugg ziyaare ko saafonte ak moom waxtaan ak moom ndem soob na yàlla sunu borom subhanahu wa taala jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen sit internet Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax a baax di am kontaan ak mbégte ci ànd gi ngeen ànd ak ñun ñuy jiital ci nuyoo bi ak ziar bi saahibul fadila wal wasila sëriñ Muntaqa Basiru Mbàkke di ko ñaane yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram waaye noonu lañ koy ñaanale mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xamante ne ñi ngi ci biir réew mi ak ñi ngi ci bitim réew waaye di ko ñaanal ah, comme ni ñu ko waxee woon noonu la ñuy def gis ngeen ne tey ñëw nañ siyaare si seet si jëmm joo xamante ne ah, dootuñu ko présenté ci àdduna wërgal këpp ndax jëmm la joo xamante ne li ma ko waxee sànq rek ah, turam àgg na foo xamante ne jëmmam àggu fa ndax gis ngeen ne fépp foo taxaw boo ne kenn Serigne kenn Niang kennal Serigne Touba xel yi day dem ci moom ba tax nañu ñëw tey seet ko fii ci këram ngir waxtaan ak moom ngir gën a xam Serigne Djily Niang waaye tamit ngir gën leen a xam xamle ak jëmm gi sell ji nga xamante ne moom lañ jàkkaar lool xam naa dama koy jox kàddu gi mu nuyoo su nuyoo ba pare ñu doog dugg ci laaj ak tontu yi sanga bismillah aouzu billahi min ashaytan arrajim wa inni u'iizuha bika wa surriyataha min ashaytan arrajim rabbi aouzu bika min hamasaati sayaatin wa aouzu bika rabbi an yaxduruun yaa xayra munsilin waxaa bi asbala wa xayra munsilin abaa bi basmala salli bi taslimin ala man faaqa fi xalqihi wa xulqihi ittifaaqa sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi fi lhaali wal maali kama bi kastaansa min sheytaani wa nawwara alxuluuba kal awtaani watkab cheikhul xadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi ñoo ngi nuyu mbooleem jullit yépp fépp fu ñu mën a nekk di leen siyaare di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaan yàlla mi nga xam ne dara tewu ko sama nuyoo bi yàlla na fekk ñëpp ci jàmm. jërëjëf ñoo ko déggandoo nuyoo bu mat bu matalee ñu koy delluwaat di ko wax aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Jili xam naa ne laaj bu njëkk bi moom mooy euh, di yomb sax ñu wax ñu ko mooy euh, waaye nag luñ ci am mu jël luñ ci am mu doy buñ bëggoon a xam kan mooy sëriñ Jili ñang dëgg-dëgg lan nga ñu wax. waaw sëriñ Jili ñang euh, tam ci ci tàmbali moom mooy sëñ Jili Ñaŋ ab jullit la ab jullit la di ab taalibe di taalibe sëñ Tuubaa di xam ne juddoo na fu baax ci ñu baax ñu tuddee ko turu baax muy Seex Abdul Xaadir yar ko yarub diine jàngal koyit lépp loo xam ne dees na ko jàngal doomi jullit ba yàlla dogal ñu jàng ca ba xam ca la nga xam ne mooy suñu wërsëg ci ñu war koo xam bi loolu lépp amee it fépp fuy nit di jaar ñuy doomi julli rek ci ci ci gàttal jaarale nañ ñu fa ci xam-xam ak ak yar ak lépp. ginnaaw bi ñu duggee ci li nga xamante ne moom mooy euh, njàng mi euh, tubarkalla macha allah bi nga jàngee bi nga xamante ne yàlla dogal na nga xam lépp lu doom doomi soxna di xam euh, wan yoon mooy yoon wi nga xamante ne moom nga njëkk a waaw man de ci gàttal yoon wi ma njëkk a jaar moom mooy yoonu yoonu murit maanaam ci gàttal yoonu nit koo xam ne am murit la mooy jàng xasida dund murit gi di yëg sëñ bi di ko yëg di ko dund. di yëg sëñ bi man man naa wax ne ci loolu laa ci laa juddu waaye ci laa tàmbalee mooy doon am murit doon ab jullit doon am murit ba noppi di dund murit gi. Hmm. noonu nga tàmbalee léegi ñu gis ne euh, bu ñu waxee Serigne Djily Niang rek xel yëpp day dem ci kennal Serigne Touba kennal sëriñ Touba gi naka la dikkee euh, ba nga xamante ne euh, dàkkantal la ci yow. waaw loolu dafa nekk mbir moo xam ne ci ñi nga xam ne ñoom ngay waxal mooy ñi nga ñi nga bokkal pas-pas ndax mbirum kennal sëriñ Tuubaa day mbir moo xam ne dafay mbir mu xot ndax Seexul Xadim day jaamu bi yàlla boo xam ne topp na yàlla ba jox ko lim am lépp topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba jox am lépp Seexul Xadim amul dara loo xam ne am na ko wala desee na ko ci digganteem ak boroomam amul dara loo xam ne desee na ko ci digganteem ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam lépp loo xam ne diirub liñ koy gis ba niñ ko noppee gisee amul dara dara dara lu sëñ bi def loo xam ne génn na diggante suñu borom ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu nekk su fekkee ne dañ dañ ci ay ndaw ndaw yàlla dogal ñu bokk ci moom gëstu ko ñu jàngal ñu ko ñu dégg ko yëg ko xam ko loolu moo ñu yóbbu ci martabam ñu xam ne sëriñ Tuubaa kenn du moom baatub kenn du moom boobu moo ñu indi ci ñu kenn ñu naan kennal sëriñ Tuubaa kennal sëriñ Tuubaa nag ñëpp xam nañ ne kenn moom mbir mu mën a doon la ca la ca ka gën a man dara amul moroom lañ koy woowee bu dee ñey fo kañ jàpp ne moo dàq fo dañ naan amul moroom moo man diw bu dee nangam ñu ne amul moroom sëñ Tuubaa nekk lim doon lim doon liggéeyal boromam ak Yonent bi alayhi salaatu wasallam da ciy amul ndend moo tax ñu koy wax kennal sëñ Tuubaa ñu ma koy wax mooy ber sëñ Tuubaa def ko muy kenn ginnaaw bi ñu wéetalee suñ borom kennal ko topp Yonent bi alayhi salaatu wasallam ci sariya ak ci digleem gëm sëñ Tuubaa wóolu ko yaakaar ko doyloo ko ba noppi kennal ko waaw loolu am na solo ndax xëy na dina leeral lenn ci li nga xamante ne xëy na bu déggin wi nga xamante ne eh, am nañ ko ci eh, ak déggin wi nga xamante ne wax nga ko dana leeral bu baax a baax a baax bañ xam ne Serigne Touba kennal gi eh, ci jaamu yàlla lañ ko kennale ak digganteem ak boromam léegi ñu gis ne Serigne Djily Niang jëm la joo xamante ne mbooloo yi muy dajee la plupart su dajee ci mbooloo da cay ràññiku lool te day jël alalam di ko def ci yoon yàlla xëy na sax doo bëgg ko wax waaye xëy na remarque bu ñu def la loolu tamit naka la lay dikkee wala bokk yëg bi nga am sëñ bi noonu waaw xam nga loolu moom Seexul Xadim moo ñu ko jàngal da da Sëñ Tuubaa dafa wax ne lépp loo yor attan koo joxe te yàlla tax saa boo geesoo gis ku la ko attan a jox te yàlla tax waaye lépp loo yor te attanoo koo joxe te yàlla tax boo doon wër àdduna ba mu daj doo gis ko attan jox te tax loola nag dafa dikkaat ci alxuraan ndax alxuraan dafa wax ne wa ammaa maa yanfa'u nnaasa fa yamkusu fil ard dafa xam képp ku amal njëriñ nit ñi yàlla bàyyi la ci kaw suuf loolu képp war tax lu nit yor bokk kook jaami yàlla yi ndax suñ borom dafa bind doomu aadama waaye da koo bëgg bëgg gi day doon euh, mën nañ mën nañ koo yaatal ci euh, ni muy dox doxalee ak mbindeef yi teraanga jëm leen may xéewal gi dund gi di euh, mala yi ngay ngay rey di lekk loolu ci teraanga yi suñ borom yi la bokk mu defal ko mbindeef yi léegi nag ginnaaw suñu boroom dafa teral doomu aadama dama jàpp ne lépp loo xam ne suñu borom jox na la ko dala koo joxeloo waaye denc lu loo ko yàlla kum jox lu ëpp sa dundu rek dala séddal loo looloo waral bu ñu demee ci jotaay yi nga xam ne jotaay yi suñu borom la ndax jotaay yi suñ Tuubaa mooy jotaay yi yonent bi alayhi mooy jotaay yi mooy jotaay suñu borom léegi nag lañuy yor mu néew ak mu bari bu ñu eggee gis ne ñoom ñoo ñu ko gën a soxla ñu jox leen ko te yàlla tax loolu am na solo euh, may fàttali mbokk yi ne leen tey yéen a ngi jàkkaarloo gémmi ji nga xamante ne moom mooy Serigne Djily Niang kennal Serigne Touba nekk fii ci Touba sëñ Djily euh, ñu daal dugg nag ci beneen pàcc bi nga xamante ne euh, ci biir waxtaan wi la muy actualité bi gis nañ ne actualité bi fi ñu toll nii am na mbas moo xamante ne moom moo war àdduna war warngal këpp muy coronavirus bi ndax am naka nga ko Serigne Djily Niang jàngate ci jaloore yi nga xamante ne mi ngi koy def moom coronavirus ci askan wi loolu ñu suñu boroom digal ci wax ci alxuraan ne wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi waljux wa naxsin min al amwali wal anfusi wasamarat wa basiri sabirin loolu mooy lii rek mooy suñu boroom moom dañuy nattu ci yëpp waaye nag dañuy wax ne loolu lii lépp bu amee da ngeen di wax ne alladina isaa asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi ñu bari dañoo jàpp ne loolu bu bu fi nit bàyyeekoo dong lañ ko war a wax waaye lépp loo xam ne suñu borom da koo dogal muy lu ñu jàpp ne dafa naqari wala neexut dañoo war a dellu mooy xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñëpp ci suñu borom dañ jógee te ci lañuy delluwaat ak lu mën a xew. bu fekkee ne feebar bi nga xam ne lëmbee na jamono nag moom awuma ci benn jàngat bu weesu li suñu kilifa wax muy Cheikh mun Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko. ataana allahu baqaa mu wax ne euh, coronavirus mbindeef la mu suñ boroom sàkk da koo sa yàlla da koo sàkk suñ boroom da sàkk sàkkuñu ñu digal ko digal ñu léegi nag dañuy jàngat ñun suñu diggante suñu boroom ba xam lan moo des ba waral lii nga xam ne wàcc na ci suñu kaw lan moo tax mu wàcc ndax wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabata aydikum suñ borom nee na musiba moo leen gis rek yéen a ko sabab kon li am solo mooy nañu delluwaat ginnaaw ñu tuubalaat suñu borom te xam ne kat amul lenn lu am lu jëngatu walla mu dal wala lenn loo xam ne am na te amul ci neex neexaayu seexul suñu borom lépp lu am rek suñu borom ko namm mu def ko nam ko neexee. léegi nag mbir mu am la ca gën mooy bu xewee ñëpp toog jàngat. lan moo waral lii ñun kat dañoo wàcc yoon wi dañ gaaw dabiwaat yoon wi bala ñoo sori ndax kat wa anna haza sirati mustaqiman fattabihuhu waaye nag wala tattabiu subula la mooy subula mooy ñàll yi mooy yi nga xam ne boo ci jaaree da ngay di gis dik gis jaan gis lépp mooy coronavirus ak yeneen yu ko gën a garaaw ndax suñ borom am na yu ko gën a garaaw yu nekk ca moom bu ñu wàññeekuwul rek day gën di ñëw yàlla na ko fi yàlla jëlee. yàlla na ko fi allah kon bu ñu déggee eh, si kaddu mooy wane ne kon xëy na jaami yàlla yi war nañuy tuubaat jëme ci seen borom eh, di sellal jëme seen borom te xam ne yàlla li mu digle moom eh, ba àdduna tukki daf koy digle. ba tey ñu dugaat ci lii di coronavirus bi ndax bi mu amee kii di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xale général kul murid dafa am taxawaay bu am solo boo xamante ne def na ko ci mooy jël alalam joxe ba pare joxe ay dénkaane ay kaddu ñu gis ne ndimbal loolu dafa raar trop ak léegi parce que bu njëkkoon gis nañ ne ñi ngi doon def ndimbal li waaye léegi nit ñi dañu dañu xaw a toqee ndax am ndimbal dafa am bu àpp. déedéet xam nga sëñ Muntaxa li mu def dafa donnu maamam Seexul Xadim ndax Sëriñ Tuubaa kat képp ku mos a jaaxle ci moom ngay jëm si biñ ko gisee ba niñ ko noppee gis ku jaaxle ci moom nga jëm si xam nañ bu baax ne euh, xaalisu France bi bu mu daanoo Seexul Xadim moo yëkkati ab lim joxe muy téeméeri junni ca jamono jooja ngir franc CFA yëkkatikuwaat ñëpp xam nañ ko. Cheikh Mamadou Moustapha bi mu fi toogee noonu la doxalee Cheikh Mamadou Fadal bi mu fi toogee noonu la doxalee ba Cheikh Mamadou Mountakha mii. Cheikh Mamadou Mountakha nag kilifa la goo xam ne dafa jiite mbooloo nit nag bu jiitee mbooloo dafay xool la gën ca ñoom mu de mu de leen ca taxaw moo waral bi mu amee fi sansa mu xam ne moom ab ab ab ab roy royukaay la mu yëkkati alal jooju yëkkati ko jox ko mbindee fi yàlla yi ndax sëñ Muntaxa dañu xam ne yàlla la fi nekkal. lépp loo xam ne mbirum jullit ñi la suñ borom ci loxoom la ko teg ñu xam ko ak ñàkk koo xam kon daal li am solo ba am solo mooy nañu xam ne li am wala li xew li war a am la rek am. amul lu lu lu lu loo xam ne dañ ko war di waxtaanee kilifa la goo xam ne def na la mu war a def nit nag bu waree bu defee la mu war a def wàcc na waaw. macha allah ñu dugg ci beneen actualité boo xamante ne sax bis bi tey bis na tey la dellu si muy euh, seetlu nañ ci Touba Mbaar ya benn ndaw loo xamante ne dafa doon liggéey euh, ay waajuram yaakaar ko ndaw ni moom bojj ko paaka mu faatu. ndaxam yow itam ku ndaw ñu diglu nga ban message ngay lancé jëmee ca ndaw ñi nga xamante ne dañuy euh, jàppante ci mbedd yi ba bakkan ma caares dañ euh, bala nga koy ñaanal ne yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko taxare ko àjjana euh, waaw bu fekkee ne nag wàllu ndaw ñi moom ci ci ci ci kilifa yi lay njëkkee te ndaw ñi ndax ndaw bu fekkee ne dafa dafa yàlla dala koo jox muy teraanga joo xam ne dafa da doo suñ borom dafa jël xéewal gu toll na yëkkati doom jox la mu juddu nga euh, tuddee ko tur bu baax yar ko yarub diine jàngal ko kooku bu màggee leneen dana nekk cim xelam wala ci boppam lu dul dem di tase fenn di rey kenn kon nañu njëkkee ci li ñuy def ci xale yi nañuy xool lu mu doon ndax kat bant boo gis bu tooyee nga koy jubbanti waaye bu demee ba wow boo ko bëggee jubbanti da koy damm kon li am solo mooy nañu defaraat jikko yi njëkk waaye nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale ci ñoom nañu yaraat xale yi te jàngal leen yarub diine te jàngal leen diine bu nit jikkee ci ñoom dootuñu mën a def leneen waaw macha allah jàngal xale yi diine ñu dugg na ci dernière actualité bi nga xamante ne moom mooy tabaski bi xam nga ne mi ngi jub si ñàkkul ay kàddu yooyu dénkaane jëmee ci wàccuwaay yi nga xamante ne tabaski suñu borom jox na ko ko ñu jox ko ko te bañ a topp rek euh, xar yi ak yeneen yi waaye am na beneen wàccuwaay boo xamante ne xëy na suñu borom jox na ko événement bi nga xamante ne moom mooy tabaski waaw xam nga mbirum tabaski moom digalul suñu borom la bu mu digaloon ab jaamam mu fas yéene koo jëfee yàlla teralee ko lam ko teralee mooy xar moom nga xam ne euh, Ibrahima yonent yàlla Ibrahim yàlla digal na ko ci doomam bi tudd Isma lam ko waxoon mooy rayal sa doom ji ba mu ko waxee dane ko ifxal ma tuumar sa tajiduniya insha allahu min asaabirin defal li la sa borom digal insha allahu dinaa ko muñ muñ bu sell moom na waaye nag ñàkk a jëfe suñ borom ndax suñ borom ñi ko xam dëgg lépp lu mu dawal leen di neex ndax seexul xadim kat euh, xam dégg nañ ci taarix ñu ne am na bis mbas am mu metti moo xam ne nit ñi dañ daan ñëw naan ko ñaanal ci mbas mi nag mooy leen jaamu suñu borom bu jub moom du caagi ne lu suñu borom def da koy ñaan mu jëlee ko fi waaye day fexe ba lu yàlla def mu neex ko ñoom ñooñu noonu lañ daan doxee ndigal la loo xam ne suñu borom moo ko digaloon ab xaritam muy Ibrahim ndax Ibrahim ñëpp xam nañ ne wa taxasallahu Ibrahima xalila xaritu suñu borom la woon. yàlla dogal mu digal ko ko mu mu jëfe ko bi mu ko jëfee nag suñ borom wuutalaay ko teraanga jooju muy yónni yonent yàlla jibril mu indi xar xar moom yi mu yónni mu yónni jibril mu andil ko xar moom mu ñëw wuutale ko ak doomam jooji kon loolu moo waral jullit ñëpp saa bu egsee ci ku ko man ku ko man dang ko war a def ci ku ko man léegi nag bu fekkee dañoo dem ba egg ci bëgg koo def mbirum yilla mbirum yi la mooy diw rey na xar mu toll nangam dinaa ko rey diw def na nangam dinaa ko def day mujj di di tax ngay dugg ci loo xam ne mënoo ko ndax diggante la boo xam ne dëgg la sunna la tabaski sunna la képp koo xam ne mën nga ko wàcciwu la waaye képp koo xam ne mënoo ko wàcc na la tabaski it nañu xam ne du mbirum puukare loo xam ne nit ki da ciy wut tiyaaba la nit lu muy wut tiyaaba wul cee wut bàkkaar ginnaaw nag euh, mi ngi ñëw nañu dalal su suñuy xel te yaakaar yàlla te wóolu ko te doyloo ko kenn ku ne la la yàlla jox mu doy la ndax diggante bu gàtt mu jàll nga di ko ko loo xam ne dañ koy fàttali ak di ko nettali fexe ba mu rafet da ci am solo. macha allah. jërëjëf Serigne Djili ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy dernière partie bi di Serigne Djili ñang euh, kennal Serigne Touba ginnaaw bi ñu xamee Serigne Djili ba pare euh, Serigne Djili mu nekk koo xamante ne day yëngu ci li nga xamante ne moom mooy wàllum ñaan wàllum ñaan boobu soxla nañ ay leeral jëme ci euh, naka nga koy defee ak tamit wàllum ñaan wi yan te leeral nga ci mën a gën a andil. moom ci alquran rek la ñu tënku ndax suñu moom dafa wax ci alquran wa idaa saalaka ibaadi anni fa inni xaribun ujibu daxwata daaxi isaa daxaani kon fal yastajibu lii wal yuminu biya laallahum yarsudun wax ne adduxoo nii astajib lakumu maanaam mbooleem euh, alquran boo koy xool suñ borom mi ngi lay soññ ci ne ñaan ma ndax suñ borom li mu yor dafa bëgg ku koy laaj dafa am ñoo xam ne nag suñ borom da leen a bind wàcce leen ci àdduna ndax ngir ñuy doon ay missionnaire waaye ñoo xam ne suñ borom da leen a wàcce ci kaw suuf ngir ñuy xettali mbindeef yi ci euh, saaxir wala ci baatin saahir si mooy niti àdduna yi baatin mooy ñi nga xam ne seen maama fi nekkoon daan doxal diine daan jàngale alquran seenu njaboot màgg nekk ca seen i sët seen sëtaat ci loolu lañ bokk ndax ci ñooñ lañ bokk loolu euh, mooy suñu euh, mën naa wax ne bu fekkee ne nit ki dafa am lu muy jàng di ko xam ñun loolu lañ jàng mooy fexe bay fajal nit aajoom ji nga xam ne tëli na ko te ñaan mooy ni nga ko waxee bu fekkee na ci baat bi lay dikkaat dafa nekk lu simple mooy ñaan mi ngi mel nit ki nga xam ne dafa yor dara di ko lekk moom ko nga ñëw bëgg ci nga dem ci kim ki ku gën a jege nga ne ko doom a ñaanal diw ci lim yor li xam loolu mooy xam nga ne diw mi bu ko ñaanee mu may ko ndax jege na ko loolu rek mooy mbir mi mooy nit ki da ngay jàpp ne moo la gën a jege sa borom wala it moo la gën a xam yoon wi jaar suñu borom ndax suñu borom du caageen da ngay ñëw ne ko may ma nangam déedéet dafa am fooy jaar suñu borom da nga koy tagg bàkk ko ci ay mag ci màggam xam fi koy jaar fépp door ko wax ne ko may ma nangam wala mayal diw nangam suñu borom def ko ci loolu rek lañ tënku. dëggu mu mel ne xeeti ñaan yi bëri na euh, léeg nga gis koo xamante ni euh, ay ñaanam da koy tuddee lasaraar ñenn ñi di ko tuddee euh, ñaan simple ñenn ñi tamit di di ko duggee ci yeneen yoo xamante ne sax xëy na xam-xam bu ñu ñu demee mais sëriñ li moom xeetu ñaanam ci fan lay dellu moom ban mooy dalilam. xam nga lasaraar baat bi mooy ci gàttal rek mooy mbóot mooy loo xam dafa nëbbu. lu nëbbu mooy loo xam ne xam nga suñu borom nekkut ku ku ku populaire koo xam ne daf ne dajji rek nga déedéet suñu borom dafa nekk lu nëbbu loo xam ne mënoo koo wax nit sam xam ko ndax tey jii su fekkee da ngaa toog naan la ma naan la suñu borom amul suñu borom amul makkaan amul samaan suñu boroom fépp foo foo jàpp ne ma fa rek ma nga fa suñu borom moomu nekk dafa am ay xeeti secret yoo xam ne da nëbbu wàcce ko ñu ne loolu la ñu tuddee asaar asaar boobu nag mooy li ma la wax amut ñun ñun ñu maanaam def lenn loo xam ne jëlewuñ ko ci kitaabullahi mooy alquran ndax suñ borom kat euh, suñ Tuubaa kat nee na bu sànni kitaabullahi sama sama tool mooy téereb yàlla bi moom moo ko jox wàcci waayam yaa kitaabal karimi anta xalili wa habibi wa xablukun lu ne wax na ko ko kon nañu xam ne ñun wala man du ma ñaan du ma tegtaloo awuma benn dalil lu dul ci alquranul karim ndax maa farat naa fil kitaabi min shay'in alquran suñu borom nee lépp a ngi ci biir dara dara dara dara desut lépp ngi ci biir alquran. Mhm. macha allah kon ci biir alxuraan rek mooy fi nga xamante ne fi ngay delloo sëñ ji li ndax am léeg-léeg ñu gis koo xamante ne dana feebar ba tëdd jaaxal ay mbokkam bu si woon ci yow tey ndaxam am di nga ko ci mën a jàppale. waaw alhamdulilahi rabbil alamin xam nga feebar moom ñaar rek moo am feebar boo xam ne suñ borom dafa namm mu wér feebar boo xam ne suñu borom dafa namm nit ki jaare ci ngir wujj ko ndax suñ borom lépp lu mu def rek dafa am sabab euh, bu fekkee ne nit ki dafa feebar feebar bi nekk ci yaramam muy feebar boo xam ne tee na ko dox ay soxnaam wala mu tax koo tëdd wala mu tax koo nangam lu doon bu egsee ci ñun ñu xool ba xam ne feebar bi luñ mën a seppi teg teg ko fële dañ ko ci dimbali dindil ko ko te yàlla tax. mu mel ne tamit bu ñu xoolee lii di nga xamante ne mooy euh, métier lii di euh, ñaan ak yooyu léegi pëccaxoo bi dafa bari euh, da ngay gis koo xamante ne sax daanaka danga koy xam ci leneen ba mu yàgg da gis ko mu tourné dugg ci biir ñaan bi yéen ñi nga xamante ne xam nañ leen ci ngeen ngeen ngeen gëstu ci na ngeen ko war a gëstoo xam ci li ngeen war a xam naka ngeen di dunde ak yi yenn gars yi nga xamante ne xëy na ñoom dugg nañ ci ngir leneen lu bokk rek leen ci dugal yéen naka ngeen di dunde ak ak ñooñu nga xamante ne dañ cee bokk dugg te bokkuñ ci suñ borom dafa maye te maye mi bari lool kenn ku nekk ak lam la may li am solo ci àdduna mooy kenn ku nekk la ko yàlla may bu ca yemee tawféex mën na caa am waaye lépp loo xam ne jàpp nga ne ay pexe moo la koy may wala naxe wala nangam bis dana ñëw ndax si Abdul Ahad Mbakke mu baax ma wax na ne nee na nee na naxe ñetti fan la fan wu njëkk wi nga koy defee ak fan wi la ñëpp di xamee ak fan wi la ñëpp di bàyyee. moo tax euh, nit ki munta fexe fexe fexe ba lekk loo xam ne du wërsëgam lépp loo xam ne nit am na ko rek suñ borom moo ko ndax wa maa min daabbatin fil ardi illaa ala llaahi rizquhaa wa yaalamu mustaqarrahaa wa mustawdaahaa kullun fii kitaabin mubiin suñ borom moo yor wërsëg yi te picc mi nga xam ne dafa jóge ci tàggam naaw dem dem wuti day lekk ba suur doon a ñëw te buy ñëw day indaale te bi muy jug dem dem xamut fu mu nekk kon nañu xam ne suñ borom kenn ku nekk lim la jox bala ngaa faatu lu toll ne sorra du ci des lépp loo war a am da nga ko am kon nañu rafetal wutin wi ak defin wi ak waxin wi ak lépp te xam ne kat suñu borom nopp na ci lépp. ci li wér macha allah léeg nga gis sëñ bi ku nekk bitim réew bëgg ay ñaan ci boppam euh, ndaxam xam da nga jokkalante ak ñoom ak ñaan euh, ci képp koo xamante ne sax nekkul ci biir réew mi waaye ma nga bitim réew te soxla ñaan yoo xamante ne day jëm ci moom. waaw waa bitim réew moom dañ leen di euh, balaa dara xew dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal. ndax wax dëgg fa yàlla ñu ñu safoo lañ ñoo xam ne foo toll ñu ngi lay woo di la bu budul ñaan sax dañ lay sopp te Sëñ Tuubaa rek tax ndax nañu xam ne mu Sëñ Tuubaa ñi ngi fépp ñi bëgg yàlla rek ñooy taalibe Sëñ Tuubaa yi bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek ñooy taalibe Sëñ Tuubaa yi képp koo xam ne bëgg nga yàlla bëgg nga yonent bi boo bañee Sëñ Tuubaa rek am na lu des ci ñaar yooyu nga wax ndax Sëñ Tuubaa moo waxoon ne képp koo leen wax li ma yàlla jaral wax ko li ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaral dana ma bëgg kon li am solo mooy ñëw ñu maa ngi leen di ñaan ñaanal suñu borom defal leen ay tawfeex foofu ñu nekk léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne ndeysaan dañuy sonn ndax li ci bari dañuy yëkkati seen alal yónnee ko ay nit te lañ bëgg duñ ko am mën naa am du ci nit ki nga xam ne moom lañ ko yónnee waaye dafa am ci nit ñi ñoo xam ne seeni tabian amewul nga naan ko am lii takk ko wala am lii sangu ko dafa am ñoo xam ne seeni tabian soo leen bëggee ñaanal loo xam ne gis nañ ko ci kurus nga leen koy ñaanalee moo tax waa Europe waa bitim réew ñu ci bari ñu ngi jëflante ak ñoom ci wàllu kurus la ñuy jëflante ak ñoom koo ci xam na nag mënul ñoo laa ñàkk a jox loo xam da nga koy jëfandikoo am nañ ay yoon yu bari yoo xam ne mën nañ faa ba nga jot ko ñi ngi jëflante ak ñoom jëflante bu rafet ñu ngi leen ñaanal ndax ñoom it ngi ci ay njàqare yu bari ñi ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom mu teggil leen ko te defal leen ay xéewal ba ñu am ay xéewal ba ñibbisiwaat ci seen i mbokk macha allah laaj bi moom mooy jëm ci wàllum euh, nga gis koo xamante ne yàlla daf ko nattoo muy def loo xamante ne xëy na gënalu ko par exemple muy jël alalu jàmbur wala muy muy def loo xamante ne daal xëy na yoon diglewu ko te mu bëgg ko bàyyi wala muy tux wala muy def loo xamante ne rek bëgg bëgg na koo bàyyi tamit ki nga xamante ne nekkul ci yoon di nga ko mën a ñaanal ba mu xam euh, képp koo xam ne nekk nekk nga ci loo xam ne da ngay da lay leer ne bëggoo bëggoo faatu dee fekk la ci muy loo xam ne suñu borom bëgg ko ndax. yooyu nga fi tudd mi ngi mel ne tey ji aaya boobu di wax naan yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsun min amali seytaani yàlla suñu borom dafay wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ngeen bàyyi nangam ak nangam ak nangam ndax loolu kat mi ngi bokk ci jëfi seytaane kon euh, nañu nañu xam ne képp koo xam ne yaa ngi naan sàngara bëgg koo bàyyi wala ngay tux bëgg koo bàyyi wala ngay jël loo moomul bëgg koo bàyyi boo ñëwee fii danaa la tàggaleeg moom ci kàttanu suñ borom incha allahu taala. incha allah macha allah loolu am na solo ba tey tamit euh, li nga xamante ne moom mooy euh, jamono toll na foo xamante ne xëy na ñëpp soxla kaaraange euh, ndax am kaaraange mm, place ak kaaraange yaram tamit da nga ci di yëngu moom itam ngir nit ki mën a am am kaaraange gu wóor ci àdduna. waaw xam nga kaaraange moom mooy li ma wax rek man sama lépp dama koy dellu ci alxuraan ndax suñu borom lépp lu mu def rek la tax mu def ko xam nañ ko ndax boo déggee ñu bari ñu naan del jàng. ayatul ko yu li ko waral kaaraange la ndax euh, laa taqsuhu sinatun wala nawmun suñ borom bu nelaw amut maanaam lépp loo xam ne day tax nit ki mucc suñ borom da ko def ci biir alxuraan ndax boo xoolee wax naa ko fii bu yàggut ne am na ñaari saar yoo xam ne ci boo xoolee qul a'uuzu bi rabbil falaqi min sharri maa xalaqa min sharri maa xalaqa wa min sharri xaasixin isaa waxaba wa min charri nafaadaati fil uqadi wa min charri xaasidin isa hasada kon xam nañ ne nit ki mënut a ñàkk muslu ci yooyu yi nga xam ne lu ne suñu borom mi ngi ko mi mi ngi ci mi ngi ci muslu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko taxoon a jóg kon képp koo xam ne bëgg na kaaraange lu koy tax a mucc ba kenn du mën a am ci moom accès ba mën ko yàqal wala dara du mën a dal ci kawam wala nangam bu egsee dañ ko defal kaaraange loo xam ne euh, bu bu bu nit ñëwoon tëll bal hmm. mën na ci am mucc. jërëjëf kon euh, tontu woowu leer na euh, ñu delluwaat ci beneen question bi ci topp te question bi mooy ndaxam tey jii ku ñëwoon jii ci di ñaanlu si euh, bu accès nan lay def da nga koy seetal ba pare doo koy doo koy ñaanal wala nan ngay jëflante moom tout d'abord. waaw xam nga sëñ bi seet ñaan boog dafa nekk mbir moo xam ne képp koo xam dafa jóge ci fu sori ñëw ne damaa bëgg nangam la ci jiitu mooy danga war a seet ci mooy kan njëkk. Ah, wala nga war a xool tabi'am xool ay rawxaanam xool ay rabam xool ma mboolem bunt yi nga xam ne dañ koy war a mën a jaar ba dugg ci ndax suñu borom dafay wax ne waatul buyuta min abwaabiha bunt boo fooy dugg na nga jaar ci bunt ba bunt bi mooy seet amul kenn koo xam ne dañ jëflanteeg yow te seetaluñu la te képp ku ñu seetal nit danañ la wax ci yow loo xam ne da ngay xam ne lii moo nekk ci man léegi nag wane ba xam ne nekk ci ci yow ba noppi nekk ñu door a xool yan solution dañuy am ba mën koo dindi ci yow waaye li jiitu daal mooy képp koo xam ne woo na ma fu mën a nekk wala mu ñëw fi danaa la wax ci sa bopp loo xam ne yow sa jëm bopp mosoo ko dégg. mosoo ko dégg xanaa kon sëñ bi da ngaa amee jinne ndax léeg-léeg ñu dégg sax kuy bàkkoo ne borom junne yi sëñ ji am na junne wala amatu junne. xam nga jinne dafa nekk mbir moo xam ne ni niñ ko jàppalisee dafa metti jinne mbindeef la mu yàlla bind. nit ñi ñoo gën a foor jinne yi suñu borom dafa wax ci alxuraan wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma jinne yii nit ñi ñoo leen ñoo leen gën a foor ñoo leen gën a kawe ndax suñu borom dafa ne wa laqad karamna banii aadama wa amalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiilan loolu nañu xam ne jinne yi ay ay ay ay ay gaay lañ ci yi yi ñuy jëfandikoo mi ngi mel ne tey jii mbubb mi nga sol wala verre yi nga sol wala kii leen lu nekk saa boo ko bëggee te dox ca suñ borom booy laag loola lu mën a doon jinne yi ci lañ bokk jinne yi ñoom ñëpp ay ñu ñuy wut lañ leen am kenn ku ne boo jaaree lay tax ñu bokk ñu nekk a yow ñu nekk ak yow possibilité bi ñu am nag mooy dañoo mën a def loo xam ne nit ki mënu ko mën a dem foo xam nit ki mënu faa egg yooyu yëpp moo tax suñu liggéey yi yooyu mun cee ñàkk mun cee ñàkk mun cee ñàkk kon daal mu ngi noonu question bi leer na jëm ci wàllu woowu léegi tamit ku ki nga xamante ne tey jii yàlla dafa dogal moom rab jàpp ko ak ak saytaane yu mel noonu ndax am bu dikkee ci yow tamit di nga ko nga euh, maa ngi doon wax rab ak saytaane euh, dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu doy waar la rab dafa nekk loo xam ne képp ku nekk ci yow ngir nga am li nga bëgg mën naa bañ a gaaw ndax rab mooy koo xam ne saa boo xëyee mu xëy saa boo tëddee mu tëdd saa booy dox boo yëkkatee sa tànk mu yëkkati tànkam bu nekkee ci yow saa boo yëkkatee sa tànk mu yëkkati tànkam saa boo toogee mu toog boo waxee mu wax bu la bëggee yàqal boo amul lu ko gën a kawe rek ci yàqal lay dëkk ndax rab dana waral nit ki lu mu lijjanti du am lu ko war a yomb jafe ko muy lijjanti ki lépp luñ ko laaj mu am ko bu eggee ñu ne ko euh, mayuñu la ci gàttal wala wala déedéet loolu li koy waral mooy rab boobu yi moo koy dox diggante mag yooyu mu war a am rab dana egg ci nit ki xamanteeg nit wala amanteek ay nit ñu wax dara ba tënk ba def dong des ci mu xëy yàqu mu xëy di woo ñooña du du du duñ ko wuyu yooyu yëpp rab da koy def léegi nag diggante rab ak seytaane dafa am ab leeral boo xam ne da ci am mooy nañu xam ne rab saytaane dañuy am lu ñuy wax rawxaan am lu ñuy wax saytaan am lu ñuy wax jinne rab bu àndeek yow ñaar moo am bu dee jigéen la man ngaa mel noo xam ne rab bi da gis bëgg la comme nii la nit ñi di gisee di la bëgg rab nekk bu la gisee bëgg la amul benn solution bu dul ñëw rek sol la ngay tëdd di gént di sa yeeg góor da lay dikkee koo xam mën naa dikkee sa bàyyi wala dikkee sa nijaay wala koo xam lool te ñim lay dikkee ñëpp ñooy rus lay doon en général loolu rab da koy def ba noppi boo jugee jëm ci moom mu lay lay la gis koo xam day jékki-jékki kiris fekk la nga jëm moo neexul rab wax moo tax mu def loolu bu dee nag rawxaan mbirum suñu borom na mooy li wax ne nit ki saabu bu saa bu juddoo dafa am loo xam ne dafay nekk ci moom nga xam ne man naa koo tuddee maanaam garde koo xam ne daf lay garde lim nay garde mooy lépp loo xam ne nar naa egsi ci wala mu dal si ci yow rek loola day taxaw ngir dindi loola. foofu mbirum rab mën naa wax ne mën nañ cee def ab émission. Mm-hmm. jëmmi rab képp ndax fi mu ne bari na luy am loo xam ne dañ koy jiñ nit ki te rab la ñaata nit nga fiy gis ñu néew kàttan ñaata nit gis ñu kàttan benn am na ci ñoo xam ne dañuy wét di jël seen xawra di ci fo ba am lu génn ci ñoom ñooñu rab moo leen ko def def loo jamono jooju ñu koy def rab mooy nekk ci seen biir leen ko def loo muy benn ñaareel ba mooy rab dana egg ci téye nit ki ba bu bu bëggee jaxasoog soxnaam sax mu bañ te dafay yëg maanaam rab ni muy manifesté woo ci ci nit ki dafa bari danga gis nit koo xam ne dana wax ak soxna maanaam ji soxnaam ngir ngir bëgg koo takk bëgg koo fas mu jékki-jékki yàqu fekk rab waa fa jaar rab dana mujj ngay nit koo xam ne ku womal nga maanaam di liggéey di am lu ne nga di ko am jékki-jékki yëfi di yàqu rab dana waral sax loxo bu bënn maanaam nit ki lu mu am mu yàqu te rab a koy def ndax li ko waral mooy rab xam na ne nit ki sax bu amee moyen mën naa jug ci moom léegi da dul bëgg mu am dara day bëgg bis bu set moom na soxla yaramam di di di ko jëfandikoo te nañu xam ne rab bu xasee nekk ci yow li fekk di ñu ci yow da topp bay topp sa njaboot. da lay topp ba topp ci sa njaboot rab daal ci gàttal li maanaam lu bari xew na te rab moo ko moo ko def. te am na ci boo xam ne sax moo gën a kii ñu bari naan dañu leen a naawtal déedéet xanaa xamuñ ne rab dana tëj nit fenn ba du fa mën a jóge masal nga tukki woon fu mel ne Europe nga dem fa daal yàgg fa yàggaay boo xamante ne du sa sago fekk rab bi moom moo la fa. déggoo ma muy def lu mi ngi koy def ñu koy jiiñ ay nit te fekk rab bi nga def. loolu tamit am na am na am na relation ak jinne léeg nga gis ko loo xamante ne tey ji euh, nit koo xam ne day jékki rek ginne sadd ko mu daanu di di di yéey aw làmmiñam ak yooyu ndax am rab dana loolu. waaw dégg déggu ma la rab possibilité yi mu am ci doomu adama jinne ndax jinne ay nit leen moom ci gàttal ci misaal nit ki jinne sàngam ci ci gàttal rek ma ne bi yataxallaqal lazina aslamu min jinne aslin doona mën na muslimo suñ tubaab dafa wax ci xas ne mbooleem jinne yi nga xam ne gëm nañu yàlla samay taalibe lañ hmm. yooyu dafa am mais waaye rab nekk lu bon la ku bon la rab ku bon la koo xam ne sayta maanaam ci ci ci ci gàttal mën nañoo wax ne rab la bu xasee dugg ci nit ki yàq rek muy mbiram mooy raw ji nax ci gàttal rab du def lu baax lu bon rek lay def mooy yàqal la dëddali la ak ñi nga waroon a àndal li nga waroon a am mu dox sa diggante ak ñoom rab li muy def lépp euh, bu ñu la ko bëggoon a wax wax fii Euh, mën nañ fee bañ a waaw. attan boo tax sax ñu gën a insister ci rab parce que euh, dugg nañ ci dégg nañ ci sax loo xamante ne xëy na mosuñu ko dégg wala boog bëriwul lu ñu koy dégg loo xamante ne la moo tax ñu bàyyi la nga gën a insister ci li nga xamante ne moom mooy rab léegi tamit léeg-léeg da nga gis koo xamante ne day nekk Europe yàgg fa loolu du am ay kayit loolu tamit ndax xam euh, sëñ ji dina ñaan jëmale ci wàllum kayit ak yooyu. waaw mboolem koo xam ne am maanaam nekk na Europe amut ay kayit bu ñu jokkoo mu def la ma ko wax ma jox ko bis na ko bis sàngam na nga def nàngam bu demee déposé kayitam ci kàttu suñu borom dana jot ndax kayit moom dafa am yu koy waral nit ki dafay am lu koy gàllankoor ba du mën a jot li mu war a jot waxuma la kayit waaye nit ki bu xasee am gàllankoor waxuma la kayit képp waaye lum mu sax mën naa dem ba jafe ko te loolu li koy waral mooy gàllankoor yooyu cat dana ko waral ak euh, def-def mën na ko waral dëj nit mën na ko waral waaye yooyu yëpp lu mu ci mën a doon buñ jokkoog nit ki lañ koy wax bu ko defee buñ ko joxee lañ koy jox bu déposé ñu may ko kayit ci kàttanu suñu borom. Euh, bi am na boo xamante ne moom xam naa bu ma doon laajoon ba dem tamit laajuma la ko xëy na nit ñi dañuy tax laaju ko euh, ci réew mi mooy feebar bii nga xamante ne moom mooy néew kattan léeg gis ni ñoo xamante ne xale bu ndaw néew kattan ndax am loolu tamit néew kattan naka naka nga ñu ci dimbale. néew kattan moom ñaari mbir la mooy koo xam ne daa foowee boppam ba lii tax mu am kàttan wàññeeku wala koo xam ne da koo dab maanaam dafa dafa nekkoon nit ku judduwaale ak waaye benn dong ñooñ ci jaaxal mooy ki nga xam ne dafa judduwaalewul kàttan ci ko judduwaalewul képp moo jaaxal waaye képp koo xam ne euh, néew nga kàttan mooy li ma waxoon nekkut loo xam ne dañ naan la demal ba lii déedéet soxna saa nga fa nga ne waaw nee na ñëwal nga ñëw ñu jox la nga dem boo eggee boo xëyee boo jullee fayal ba noppi woo ma téléphone. kattan moom waaw kattan moom képp koo xam ne néew li ko ba egg ci ba egg ci mu mu mu wàññeeku boo ñëwee bu soobee yàlla da nga sant. na ma sant. ah loolu tawfeex la maanaam loo xamante ne ci daar daar lay doon kon jàpp naa ne loolu moom. Ah, moom ku fi ñëw bala ngaa génn ci buntu kër bii da yëg ne am na lu dooleeku lu lu ci bokkutoon. kon daal Serigne Djily Niang mos xam lañ koy tuddee ndax xëy na yow mi nga toog fi nga toog te xamoo ko wala jonjante leen wala jëflantewu wu leen mënoo ko xam ay am na yeneen yooyu yëngu yoo xamante ne xëy na sax xëy na waxtu wi duñu ko may waaye di laalal ci lenn loo xamante ne xëy na di nga ñu ci laalal lu jëm ci wàllum bayre ndax nit da gis kuy jaay fii kii di jaay fii waaye daal dangay gis ne daal kii dafa mel ni dafa am lu ne ci moom daal bay ren tamit loolu tamit. waaw xam nga maanaam fukki nit bu ñu àndee fukki nit bu ñu fukki nit ñëpp ay nit lañ ñëpp ami bopp ami tànk di dox waaye am na ci kook dañ koy gis mu gënal leen juróom ñëpp la loolu mooy bayre dafa am nit ki dafa war a soppalu dafa war a def ci yaramam wala ci liggéeyam wala ci marchandise am loo xam ne ku ko gis du ko mën a te ñàkk. am na ci ñoo xam ne sax maanaam place bu diw bu ñu fa tegu seen tànk du ñu am jàmm te loolu bayra da koy def am na ci ñoo xam ne jëmmi diw bu ñu ko gisul du ñu am jàmm am na ñoo xam ne dañuy egg ci gis la sax di jooy te loolu lépp bayra da koy def bayra mooy loo xam ne daal bu xasee nekkee ci nit ki ñàkkatul dara mën naa am lu ne ndax bunt yëpp mën naa ubbeeku ndax nit ki bala mu laa jariñ da lay bëgg nit ki ñu ci bari bala ñu laa jariñ dañ lay bëgg te bayra day def loolu waaw bëri def loolu xëy na waxtu wi sax moom moo ñu permettre ñu gën a xootal ndax am na yeneen ñu bëggoon a dugg waaye xëy na lu jiw jeexu dugg fa mu mel ne sëriñ Jili nag euh, place yi nga xamante ne wala boobu bërëb yi nga xamante ne mën nañ fa fekk sëriñ Jili ak tey ji ku bëggoon a jokkoo ak sëriñ Jili fan la mën a jaar su weesoo numéro bi di affiché ci ci ci écran bi sëñ Jili képp koo xam ne soxla na ko mën nga ko woo ci numéro bii di affiché wala numéro bii may joxe muy 77 596 54 54 fii laa dëkk yi Touba yoonu Daaru Rahman fii ma nekk di bustaanul aarifina képp koo xam ne soxla na sa njiili fi nga koy fekk bu weesoo fii amu ma faneen fu may nekk. ne ko ah, maanaam amul yeneen ci région yi foo xam ne da nga fa nekk. képp ku ma soxla rek Touba rek. Touba rek. sëñ Jili Ñang mi ngi noonu sëñ Jili Ñang kenn Serigne tubaa biir tubaa rek kon képp koo xamante ne soxla na ko na ñëw fii ci Touba fekk Serigne Jili li ma wax ni nag xëy na cof la ci moom parce que waxtu wi moo ñu tënk waaye am na yeneen yoo xamante ne yàlla baaxe na ko ko ba tax na képp koo xamante ne yàlla dogal na nga nekk ci jamono te am loo bëgg a jëflante moom ci wàllum ñaan ñi ngi lay wax nga jokkoo ak moom ci numéro bii ngeen gis ci écran bi wala ngeen ñëw fekk fii ci euh, fi nga xamante ne moom mooy këram boo dikkee incha allah rabbi yàlla bu dogalee ngeen toog yaakaar naa ne sa jaaxal sa jaaxle dina faju sa Jili ma bàyyi la nag nga daal di tàggatoo ak euh, askan bi ak kàddu yi nga xamante ne am amoon nga yéene yëkkati ko te sama xel àggul ci laaj la ko. waaw euh, sama sama tàggoo dama koy jëmee ci mbindeef yëpp ak mboolem jullit ñëpp ak taalibe yi sëñ Tuubaa yëpp mooy xam ne sëñ Boroom noppi na noppi gim ci mbooleem lu mu jëf suñ borom amul lu muy jëf di ca delluwaat lépp rek suñ borom noppi na ca nit ñi kat ñoo xamut seen suba wala seen euh, tey ba tax ñuy soxorante walla ñuy iñaanante walla ñuy yàqante dañu xam ne li feeg bay wuñu di di di di defante lu ñaaw wala di ko waxante duñu jug ci di mere suñu bopp nañu gën a xam ne yàlla noppi na ci lépp te it yii ñuy wax yépp li tax ñu koy wax mooy wolof ñaay day wax ne ñi war a wax bu ñu waxul ñi wërta wax ñooy wax ndax kat euh, alhamdulilahi rabbil alamin sant nañ yàlla ci côté yëpp lépp loo xam ne nit a ngi koy wut suñu borom jox nañu ko kon bu ñu taxawee fii di wax wala ñuy wax ak nit ñi li ko waral mooy ñi war a wax ñoo war ñoo ñoo ñoo war a wax bu ñu waxul noppi ñi wërta wax wax te bu toor gi bu toor wi ñëwee kat xamuñu ki ki ki xam ak ki xamul ñëpp lañ koy boole kon nañu rafetalaat jëfin wi ak wutiin wi ak waxin wi ak defin wi te xam ne suñu borom noppi na ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex in uridu illa al islaaha mastataxtu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp jàmm barkati Cheikhul Khadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ko seetaanandoo ñoo ko dégloondoo muy waxtaan woo xamante ne jóge na ci jëmm ji nga xamante ne moom lañ dalaloon tey muy Serigne Djily Niang kennal Serigne Touba yéen a dégg yi nga xamante ne wax na ko di ay njariñ yoo xamante ne moom la làmboo kon ni ma ko mën a découvrir moom mooy Serigne Djily Niang géej la géej nag kemtalaay gi na nga ci dugg rek ngay tooyee te jàpp naa ne boo duggee ci biir géej gi ba jaxasoo ak li nga xamante ne moom mooy duusi di nga xam nga xam màqam mi nga xamante ne géej am na ko yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi bitim réew yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ci biir réew mi te bëgg aajo ju faju wala ngeen bëgg ay ñaan jokkoo ak moom ci numéro bi nga xamante ne moom moo affiché ci li nga xamante ne moom mooy écran bi wala ngeen dikk fii ci euh, yoon daaru ñu gën koo xam ci bustaanul arifin boo leen fi dikkee incha allah rabbi seen aajo dana faju ñëpp gërëm ñëpp di ko ñaanal bu baax a baax moom Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu te ànd ak waaye di sant bu baax a baax ñi nga xamante ne ñi ngi ñu topp ci euh, Rafah TV waaye sant tamit Serigne Mourtada mi nga xamante ne moom lañu àndal Mourtada Fall sant ko bu baax a baax gërëm ko